ñaar Korent juróom yaram wi nu soloo ci kaw suuf dafa mel ni ab tànt su daanoo xam nanu ne yàlla jagleel nanu am taax ci asamaan mu loxool nit defarul di taax muy sax ba faw fi mu ne nu ngi wonk di yàkkamtee féete ak sunu dëkkuwaayu asamaan sol ko ni koddaay xam ni bu nu ko solee duñu def yaramu neen nun ñi nekk ci tànt bi nu ngi wonk ndax coono du caageen ne danoo bëgg sumi sunu yaramu àddina waaye danoo bëgg sol sunu yaramu asamaan ngir lii dee soobu ci biir dund ki nu waajal ngir loolu moo di yàlla moom mi nu jox xelam di dawal ci cër bi mu nu dencal noonu kon nu ngi fees ak kóolute fu nu toll te xam nanu ne fii ak nu ngi dëkk ci yaram wii àggagunu sunu màkkaan ci wetu borom bi ndaxte doxewunu ab gis waaye ngëm lañuy doxe kon fees nanu ak kóolute te yéene jóge ci dëkkuwaayu yaram wii dem dëkk ci wetu borom bi des fi walla jóge fi li nuy fay daal moo di neex borom bi ndaxte nun ñépp faw nu teew ci kanamu kirist mu àtte ngir ku nekk jot peyu li mu def ci yaramam muy lu baax walla lu bon ginnaaw xam nañu ragal yàlla nag nu ngi fexe gëmloo nit ñi waaye li ñu nekk leer na yàlla te yaakaar naa ne leer na leen nit ba ni fànn jéemunoo waxati lu ngeen nuyu nawe waaye dañu leen a bëgg a may yoonu tiitaru ci nun te tontu ñoo ñuy tiitaroo col te du xol su fekkee danoo tàggalikoo ak sunu sago ngir yàlla la sunu àndee ak sunu sago ngir yéen la ndaxte mbëggeelu kirist moo nuy jiite ndax wóor nanu ne ndegam kenn rekk a dee ngir ñépp kon ñépp a dee te dee na ngir ñépp ngir ñi dund dootuñu dund ngir seen bopp waaye ngir ki dee ci seen wàll te dekki kon nag ginnaaw si tey xoolatunu kenn ci gis-gisu àdduna su fekkee mas na noo xool kirist ci gis-gisu àdduna léegi xooleetunu ko noonu kon bu nit bokkee ci kirist mbindeef mu bees la li jëkk wey na lu beese fi teew te loolu lépp a ngi sosoo ci yàlla mi nu jubale ak boppam jaare ko ci Yeesu Kirist te sas nu nuy waare juboo googu maanaam yàlla jaar na ci Kirist di jubale waa àddina ak boppam te safu leen seeni tooñ kàddu juboo googu yàlla dénk nanu ko ay ndaw lañu yu kirist yónni te yàllaa ngi woo nit ñi jaare ko ci nun kon nag ci turu kirist nu ngi leen koy ñaan nangu leen juboo ak yàlla kirist mi musala def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njubteeg yàlla